parcelle bu baax a baax a baax. lii lu muy def si yow. daf may rek yokku jom rek ma que lu topp sama ginnaaw dafa bëri am ñu tàng caaxaan. kon tey da ngay jël rek amul dara lépp parcelle la. incha sant daal ñu ngi ñu ngi nii liggéey nañ li ñu waroon liggéey yëpp daal waaw di ñaan yàlla may ñu ndam gis nañ ne physiquement dafa yokk tuuti masse lan moo tax ah xëy na liggéey loolu parce que man du ma entraîné sam boobu dama am ay coach ñoom ñoo ma doon liggéey loolu xëy na la rek yow ngay mbafatkat ñëpp xam nañ ci mbafatkat masse bi nga jël est-ce que du la yéexal ci ci ci boo bëggee def ay action ko sax sentiruma masse bi xaw ma nag mais sant yow yaa ma ko wax léegi. Eh, boo gisee mobilisation bi lu mu lay def. waaw mais kontaan rek. xol bu sedd rek xol bu sedd rek parce que woote woote ñu wuy si la yombul waaw daanaka gars man rek maa ko sax waaw gars laa dégg ñuy wax favori favori mais man xaw sax lan mooy favori xamoo luy favori yes man mais yaa ngi bëre koo xamante ne uh-huh. la te nañu yokk na maas tuuti c'est vrai c'est vrai mais yokku maas gi mu yokku maas du la def dara. non moom ah liggéey na liggéey na. liggéey na waaw liggéey na. mais nag waaw ñun si yoon bi lañ nekk. mais gis nañ lan lan saar ñëpp daal di la gunge. waaw c'est normal parce que xale laa ci biir xale ñu am ma teg yaakaar ma moo waral nga gis fi ñëpp. d'accord waaw li des mooy ndam yàlla nañu suñu borom may ndam bu sedd guy. d'accord barke Seydina Mohamed. jaajëf champion jaajëf champion. Taalibi Dor ñu ngi si jàppante ngi door ay tuuti suuf waaye ñu koy dajale ñu mbaax bu dajee mbaax bu dajee ndax du am lu ko metti xam na ko dañ ko bëgg a arrache xam na ko na moytuñu tegal ko sees buddi nañ ko daf koy daan a doole doxul jàmm wala jeexagul de action bi jeexagul mu ngi bañ namatuma Ouza Sow namatuma Ouza Sow eh namatuma Ouza Sow ñu ngi ci suuf bañ na mu ngi dépenser énergie bu amul fenn arbitre bañ na chute amagul am na yu nangoo dëgër nag jaru grand bi à la maye tey quoi grand bi rafet na. jërëjëf semis bi boog. waaw ñoo jël. mais grand da nga entraîné fan yii maa ngi laal de. ah. ay abbe ay ay école yu baax. <laughs> mais namm naa la grand. mbaa ngi si yee maa ngi si jàmm. yéen a ngi doxal. ñuy doxal. alhamdulilah. mën naa wax ni sa doomu ndey. wala seen journée sax laa mën a wax. ngeen commencé ko tey ah ñu gis leen fi ngeen ñëw stade bi rafet lan mooy secret bi. waaw sant yàlla rek euh, jiwoog Sénégal aussi di gërëm amateurs yi xam nga làmb moom nii rek da ngay tëgg lu neex rek. nit ñi mën a bàyyi seen yi te ñëw loolu rek la mooy secret bi. kon yéen secret bi de mooy da ngeen di tëgg lu neex. rek. su tëggee soo tëggee lu neex yow caméraman beeg reporter beeg yëpp ku ne gën a gaaw yaakamte pour ñëw làmb ja loolu rek la. Assane kañ ngay tàmbali. mais commencé nañ tey. non yow laa ubbi nañ tey yàlla nañ tëjaat ci jàmm rek. mais le 29 décembre laay ñëw euh, Tafa Mbër Alioune Seye Junior. mais loolu dana métti de. ay Boy Jobaas ay Thérèse euh, Demba Thiaw Diomaay Boy Boy Bokkal caatu montagne bébé guy gi ay yeneen. incha comme nan daan def rek. alors loolu événement bi nu mu demee nii. waa sant yàlla rek comme boo gisee événement bi demee nii danoo ànd bokk jubóo bokk ndey ak baay. ndax doomu aadama moom boo yéenee ñëpp jàmm rek suñu borom jàmm la lay may te yàlla daa dogal ñun danoo bokk àndandoo bokk ndey ak baay di xàccandoo di dóorandoo yaay borom lamb ji. lamb ji tijji ñu gis euh, Iba Mar daal rafet. waaw mais waaw mais xam nga rek gars yi ñoo namoon lamb rek gars yi ñoo namoon lamb et puis ñi ñu boole tey boo xoolee grand combat bi aussi jar na ko parce que ma Mama Lamine dootul mbër mu ndaw et Jokal aussi am na fi takkusaan bu nekk donc c'est normal stade bi bel nii. mais papa namm naa la. maa la raw fils. maa ngi siyaar ne def. ndax nu kazaalika saison bi tijji ñu gis la fi stade bi rafet noo ko gisee. mais kontaan rek di ñaan làmb euh, yàlla làmb yokku parce que bu làmb yokkoo euh, lu baax la ci réew mi dama lay wax ni rek làmb tey jii li mu jur dañ ko war a siiwal bakat tey soo demoon Amérique bëgg fa tëgg làmb du soxla sax ngay jël fii ay mbër di leen fa yóbbu bu dee Italie la même chose. bu dee France noonu bu dee Japon noonu kon tey dañu war a gërëm làmb ak acteurs yi nga xam ni ñoo fexe ba làmb tollu fii kontaan rek laa am doom jàppante nañu ngemb ngemb ma siñoor bulub siñoor ñu ngi ci mu ngi koy jéem a génnee saaku yi boobu war nañ kaa xoolaat forcer sa adversaire mu génn géew gi après ñu jox ko avertissement doy na waar. mu ngi koy daan na ko daan na ko jëli bu daan na ko jëli bu entre Mama la ak Jokal du yomb. naka waar. mais champion lu waral la. Mama kese waaw Mama Lamine kese lu aaja aajowoo rek nañ ko dund lamb rek lu mu ah, moo laaj lii di wër nii di circulé dafay jeex. noonu la demee ku ne ni nga mën a def ba am ndam ñu noonu la ñuy lijjanti ndama ñu ñor yeneen ñoruñu. mais mais mais pourquoi ngeen bëgg a ruube waa ji. waaw mais si la bokk lamb la sa lamb lañ wax lu ma rek ñoom ñoo yemul xool leen wër rek circulé waaw bu jaar si ñun. nañ wër fu leen neex làmb ji waaw buñ jaar si ñun. mais yéen yéen lañ jox favori ba pare ngeen di. ngeen di looloo am sax sa waay. mais kon lan moo tax. mais woon ne yaa taaral ñu ne ñii lan moo leen dal wala. làmb ji laaj yi rek du ngeen bëri liiru jaan sax liir mbër noonu duñ ko jàppee mu jeex sa duñ war a def dañ koy def loolu. xeex daw na koo jël eggaliwu ko door na ko attention attention mu ngi koy door attention ah kawo attention kawo attention kawo daw na koo jël attention vidé attention ñu ngi xeex ah xale yi bëri nañu lu neex ah ouais amateur yaa ngi tàkk oho oh, combat bi métti na waaw waaw ah combat bi métti na hélas xeexaat nañu sànq daw na koo jël daw na koo jël mboot mboot la wala daw na koo jëlaat ah xale xeex nañu xale yi xeex nañu ah way am nañu fit Père maa ngi ziar. ziar nañ la doom day ci loone mais sa waay tey coopérative bi ngay indi de. waaw tey coop fan yëpp coopérative ba temps yii coopérative bi bomb. Ah. yaa naka mu foo toll. sant waaw ñi ci kawam ñu ngi waaj ñi ci kawam ba ah. ñu ngi waaj waaw ne tey di bëre. non ban état de forme la ñëwee. waaw man nag dama génnoon quoi dama génnoon mais ñu gis nañ ko ñu ngi ci forme di ko ñaanal ndam rek. gars yi jox ko favori est du erreur. non lamb favori amu ci gars yi ñoo gëm ay favori lamb ku mën naa daan sama ku sa avance ñëwul pour daanu lamb ku sa avance ñëwul pour daanu quoi. ba pare indi Nasser Al Khelaïfi nag Nasser Nasser Al Khelaïfi la indi aju ci kaw nag Fall Baye. maa ngi lay ziar baax a baax. Fall lu tax nga aju fii. waaw non fii gisoo Samb laa toogal Bamba kon xam nga ne ñun fi doog dañuy waxtaan rek. Ah. gis ne fii moo gën a neex lamb rek mais mais mais combat bi waroon nekk daaw. Euh, de daaw c'est ça nga indi euh, ren ndax blessure alors est-ce que porté na la euh, préjudice ou pas. xam nga sant yàlla nag ndax boo xoolee maa ngi koy wax léegi gars yi yaakaar naa yàlla moom buy buy defar day mel ni kuy yàq ndax lii bu amoon daaw te tey duñ mën a am lu mel nii ren te jàpp nañ ne lépp luñ pertoon ndaaw mën nañ koo gañewaat fii kon dañuy sant yàlla bu baax xam ne suñ boobam li gën rek lay def di encouragé ñaari mbër yi xam ne métti na comme ni méttee ci promoteur bi am combat ba dañeel mois mu yàqu métti na ci ñoom ñëpp métti na ci ñu ni jooy suñu xaalis mais sant yàlla jàpp na tey la ko yàlla dogaloon tey la ko yàlla dugaloon. alors est ce que am na yeneen journée yooyu waajal fu mu toll nii. waaw incha allah dañuy dem la 11 janvier diggante Ada Fass on le fou buñ fa jógee non Ada Fass kële euh, bee bis mi. bee bis mi la la le 15 la le 11 janvier bi buñ fa jógee le 22 février. caatu yaraax ak ki nga xamante ne nii mooy serpent bu Cambérène buñ fa jógee le 29 mars ñoon di bébé Birahim ak Belende buñ fa jógee ne doog a ñëw ci Papa Yade ak ki nga xam ne mooy anti bu neexee yàlla euh, promoteur am ñoo tëgg nag defe naa ne gis nga leen si suuf léegi vraiment tey xool sedd na di ko ñaanal yàlla journée yi ci des gën a neex bi sa doomu ndey tëgg stade bi nice rafet gars yi ñëw wuy si comme niñ ko waxee lamb dekkiwaat waaw kontaan si lamb ji rek am ne moom c'est le travail qui paye parce que daaw bi la combat bi bokk ci woon mais lu ko yàlla denc loolu la parce que liggéeyam lu ko yàlla fay quoi. waaw ingénieur bi ma toll mooy rek li ñu naan daas liggéey àndaas ñu ma war a àndal xam nga di déglu conseil xam nga pa samay waaw samay père lépp di leen déglu di xaar rek di xaar combat maama Lamine mi ku si war nga mën a bëree Papa Yada. nga ni ma ne comme maama Lamine ak ki Jokal ku si daan. affaire war na neex. yow ñeme nga ñaar ñii buñ taaree. ñaar ñii ñoom ñaar ña buñ bëggee ñu boole leen benn jour ma bëree ñoom. nga bëri ñoom. champion. champion xanaa bi ban nga koy jox. <laughs> amul problème yow laa rek ay naaj si ah. nañoo bokk ànd ak parrain bi. Mame Boye Diao. Kéba Kanté. Kéba Kanté dama sonn. <laughs> ah Kéba moom dafa nekk suñu xarit quoi franchement nekk suñu nit tamit ndax bu ñu xewlee na si jàpp. lu ñu def tamit moom mu xew la si war a taxaw daal. raw. waaw da nga entraîné fan yii wax loolu. da nga taxaw fan yii. ah waaw entraînement ku ko deful ah, man sportif laa su ma la gisee dama dara. waaw man moom dama yàgg a nekk ci dara macha allah. waaw ah, waxuma la loolu de entraînement da taxaw fan yii laa wax. non dama ni. alhamdulilah rabbil alamin ak ah, macha naa la. mën naa wax ne tey seen journée ngeen tijji yéen ñëpp. association bi. alors stade bi rafet noo gisee. kontaan rek kontaan ci association promoteurs yi kontaan ci suñu doomu ndey Fallou Ndiaye bi tëgg kontaan ci ki ko tuddee muy Fall euh, Kéba Kade kontaan ci mont lamb yëpp lamb nii bokk ndey bokk bàyyi waaw na rafet rek. ministre bi recevoir na leen bëggoon ngeen ñu wàññi cher euh, ay euh, arène te fa ngeen jëm ndax am geen ci gain de waa ñu ngi waxtaan incha allah fii mu ngi tëj le 12 janvier. ministre bi la ñuy organiser fii benn làmb tëj ko donc fas yéene ànd ñëpp dem arène national balaa booba incha allah dina am yoo xam ne dina évoluer daal. déwante bi. non le 10 le 10 la ñuy waxtaanee le 10 production Sidi Diop Grand Théâtre. dana métti de. waaw dina métti de rëkkante la. mais Kandji yow promoteur dëgg nga ah ma ne yow promoteur dëgg nga quoi yow. Ah, yemoo ci làmb ji rek. ah mais bien sûr tëgg na Pape Diouf Grand Théâtre Kañ tëgg na ñeenti yoon Wally Seck di tëgg Sidi Diop dañ ne Kañ production c' est une structure de promotion et de production. waaw ñu ngi ci ñu ngi xeex ah combat métti na. Mbapat ñu ngi xeex. away ah away ah résistance ak doole mais na def ndànk xale nañu xeex nañu away ah affiche yi neex na combat yi ñu tëgg neex na diwaan dooki diwaan ak dooki xeex bi métti na sànq yombul mu ngi koy tax mu ngi tax attention chute lu wax arbitre lu mu wax. combat trompeur ak Bécaye 2 ñaari xale yu am sañ-sañ ñaari xale yi mën a bëri la kii dafa mën a xeex kii mën a bëre bëre sam ba moo tax combat bi mucc ayib gis ngeen ni mujjee trompeur nax na Bécaye 2 ba daan nax na ko ba daan ko nax na ko parce que Bécaye mënoon naa téye boppam ndax temps bi jeexoon na ba pare mais trompeur dafa exploité avertissement yi ko jox na xaaral ma accéléré combat bi ma am jël. mais coach mam ma ma Mama Lamine Jokkel. Mama Lamine Jokkel ñaari mbër yi am manin la kii dafa mën a xeex nekk ko agressif kee nekk ko mandi bëre yaram bi mandi bëre yaa ngi Mama Lamine bu dee li mu bàyyi li muy def bàyyiwu ko bu dee bàyyiwul yoonam mën naa am ci combat bi. yàlla gannaaw bu ñu sant jullit yonent waajur di gërëm ñëpp yal na def jàmm ci réew mi ko teew ay déwéni ñu dugg ci bismillah rahmaan rahim di ngeen ci alhamdulilah rabbil alamin ren buñ ko yokkoo ci làmb war na leen war na gën a dox war na leen gën a euh, jàpp waaw maanaam xam nga lamb léegi moom gis nga nim deme gars yi seeral nañu prix bi mooy loolu waaw ko di Baye Fall Modou Yacine Baye Fall Modou Yacine ñu ci xoolante gi moytul Modou Yacine day sàcc coppet la bëgg nga mu ne la coppet Petit Baye Fall Modou Yacine Petit dafa bëgg a daw na jëlaat ko daw na ko jëlaat daw na ko jalaat dëj na ko da koy daan daan na ko waaw ah, way lacrymogène

ah lamb dafa metti ah oui lamb dafa metti lamb dafa metti hélas xam nga waaji hélas xam nga sama waaji commandant maa ngi siyaar waaw delloo nañ lamb ji yëngu na de ah nu mais gis nañ ne ba gars taal ay lacrymogène. lamb ji amul lacrymogène de. waaw non non c'est-à-dire lamb ji mi ngi def normal mais xam nga dafa am ñu ne ci àll bi di def naka su dul noonu di agressé ñooñu nag la gars yi di xeexa di di song mais du lamb ji de. mais nit ñi ñëpp a jooy. wa man mi ah. mais mais c'est normal mais mais du ñoom gisoo boo xoolee yéex naa ñëw fii mais loolu yaa lamb yi amul benn problème. ñu ngi koy gérer normal. mais tey yëngu na ci géew gi sax yëngu na. waaw c'est parce que ni mu demee la làmb gi soog a ubbi la mais amul problème. les gens na ma làmb quoi. waaw les gens sont en de gérer xoolal na sa xel dal gaa ngi gérer. Oh. <laughs> Boubou John Sina buubu moo ñu woon droite John Sina moo ñu woon càmmoñ buubu John Sina a buubu de daw na ko jël daw na jël John Sina John Sina ngi bañ waay buuboo ngi liggéey ci suuf buuboo ngi liggéey ci suuf amul raak ci suuf buuboo ngi liggéey ci suuf suuf lay liggéey buubu John Sena door na ko léegi John Sena ñu ngi koy dajale ñu ngi dajale John Sena ñu ngi koy dajale daan nañ ko ah doole xool ko yëngalu ko sax doole yem simi tubéy bi mu ngi simeeku simi na tubéy bi ndox yi ndox waat Ibrahima Lamine Jokkel Mama Lamine Jokkel ñu ngi ci digg géew gi li mooy le meilleur El Hadj Mama Lamine Jokkel mu ngi wër géew gi mu gi mu ngi gi Mama Lamine a ngoog xale la xale la ndax bu ñu neexee tey ambiance ambiance waaye kenn du Jokal mu ngi toj ndaali mu ngi toj ndaali toj na ko ci wetam ci wetam la bii eh xale bii ah Jonkel pare na waaye Mama Lamine ba tey pare wu. ah kon xam naa ne Mama Lamine dañ doomu ndey Siteu la. Ah, ay ay ay tarkindaa leen tarkindaa. doomu ndey Siteu la du pare. ay jurgindaa leen de ay ta ah lii lan la semiñ la El Hadj El Hadj jëlee semiñ bi. xëy na loolu foofu la nga jël maa sax. waaw Cissé bu CNT moo may jox moo may jox ay protéines may na. la ma maay seer. delloo seer baax Cheikh Oumar. mais combat bi tey bëri na torop parce que waa Kër Massar dañoo sóoraale ne tarkinaay bu ñëwee foog ñu ruubee leen parce que ñoom maanaam noonu la ñuy bu ñëwee dañ lay waaxu nopp seen adversaire waa Kër Massar loolu lañ sóoraale ñëwee noonu loolu moo tax combat bi métti mais ñoom ñaar bu ñu simee ko am na lu feeñ de loolu moom yow yaa ma koy gën a xam ndax yow sportif bu mag bi waaw mais gis nga ko quoi. waaw gis nga ni gis nga ni Jokal yokku na tuuti volume mais Mama Lamine ci entraînement am dafa mel ni moo gën a wóor. waaw moo gën a tàgg mais xëy na yéen ñeen ñi nga xamante ne ne sportif sportif yi damay faral ñuy dégg na naan masse. ak ak ak ak force ak force du ñu benn du ñu benn en tout cas daal ak lu mën a xew gis nañ ni Jokal combat bi mu taxawee ba léegi dafa tekkaaral xëy na nag dafa am lu muy lu mu nar a ñëwee stratégie boobu la teg ñëw def teg a Lamine nag dafa am lu mu dul bëre mooy xeex ak yow. daw song la loolu la loolu la Jokal di waajal song bi lay waajal combat bi warul bokk ak combat bi mu bëre woon ak ak Bour Sine xool kii moo gën a diis Bour Sine su ko neexoon dana waajal boppam gën a diis parce yomb na leen kon am na stratégie boo xamante ne lal na ko na ko teg ci yoon parce que Tidiane Faye nee na ma du combat une minute non du combat waaw la waroon a tax dañ ko waroon a bëree waaye yàlla def mu ñëwaat ren Jokal moo ñu woon ginnaaw ñu jàkkaarloog Mama Lamine Jokal gauche day ñëw ci suuf la jëm Mama Lamine xam na loolu ci tànk la jëm Jokal Mama Lamine xam na li ngay def daw na ko jël waaye doole doole ah way doole ah way doole xale bi dafa oh, ngay def xam na ko xam na ko da koy daan joor xeex nañu ah waay xeex Jokkel Mama Lamine jël na ko tegal na ko sees daan na ko doole doole doole. champion daan nga victoire champion daan victoire te yàlla xam ne looy wax. waaw Kër Masar loo leen di difficile du yomb du yomb du yomb mais daan victoire quand même victoire tey bu ko yàlla xañee mu ànd yàlla. ngeen ko waxee di ngeen ko jotee. mais da nga bëreeg say morom. Ah? bëreeg say say. Tyson 2 laa soxla. enfin. Ah, Tyson 2.